doole mooy nga def lu la neex mais parce que tu as l'argent toute la presse dafay ànd ak yow ma non il est temps que je retourne li nga xam ne moom laa idée bi ma xamoon ba taxoon mu dugg ci journalisme bi bi ma amoon ba taxoon mu créer l'indépendant hebdo idée boobu il faut ma créé waat ko cette fois-ci ak euh, Kéwoulo mais foofu laay daanale mhm. dama daan bind quelqu'un m'a dit un jour si tu veux cacher un secret bu mhm. fekkee da nga bëgg a nëbb dëkk mhm. da ko bëgg a nëbb euh, ab africain bind ko africain muy sénégalais muy feneen duñu lire la moo tax nga def choix wu di def ay vidéo loolu moo tax ma def choix wu vidéo accord alors dinañ ci ñëw léegi ci vidéo yi surtout les plus récentes ah ak révélation yi xam ne moom nga def dans l' affaire Ousmane Sonko mais Issa daf may tooñ sànq di ma laaj mu ne ma lan moo tax biñ la waxee ne da ngay ñëw Walfadjri yow sa nga bind ne soo fi jugee yaanaa qui vont dire peut-être que ne euh, ki àndut ak xelam. voilà ndax euh, en tout cas du ma koy drogué du ma koy. voilà pour pourquoi nga nga bëgg a def précision. nga xam nga dañu nekk ci jamono joo xam ne. dafa doy waar. Mhm. bu fekkee ne doomi aadama yi dañuy déggoo dañuy def entente. Mhm. dañuy waxtaan utiwuñu lu dul pousser les gens la faute. pour après parce que il y a une officine qui est mhm. comment faire pour dénigrer ceux qui veulent dire la vérité de sorte que